assalamualaikum bokki talibi yi ngi ziarat bokki talibi yi yëpp eh, mbooloo mi nga xamni mo fi tew tay di mbolo daayira Jaalibatul marahib dañuy liggéeyal Serigne Touba ci université Cheikh amadou Diop Dakar ànd ak liggéey bi Serigne Amsatou moom Serigne Souhaibou di ko siyaare at mu nekk bésu tey ñu ci siyaaru ren gii ñu amoon yéen jaar ci barab bi nga xam ne mooy Béyti nekk fii ci Daaru Xudoos ci Touba bokk ci barab bi Serigne bi te lamboo mbir yu bari yu réeré te màgg lool ñu am yéen bésu tey jii nag ñëw barkeelu ci barab bi bañ ñu tamit ñu fekk suñu baay suñu sëriñ di sëriñ baay daam njaay di nga xam ne moom la teg barab bi ci loxoom mu koy seedu bokk ci waa kër Serigne Daro Hassane Ndiaye kon sëñ dam wa waa daayira jaay bitam raxib bu université Cheikh Anta Diop ñoo fi ñëw bisitee ji ci barab bi fas yéene rek barkeelu ci barab bi ci siyaar ak ak ay di di di di di taataan ci yéen njëriñi barab bi ak li aju ci barab bi yëpp kon ñoo ngi. day jaar bu baax nag ci turu jëwriñ bi Cheikh Anta Diop ak mbooloom yëpp seytaan rajim wa in yansa bika wa sariyata amina seytaan rajim rabbi ahusu bika min amasat sayatin wa ahusu bika rabbi an yahluni bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi wala dhalin amin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taali yi fi teew muy mbokki daar daar yi bàyyi ko ca taar yu kawe yooyu ca ndakaaru ñu àndandoo ñëw fi ci jëwriñi sëriñ sëriñ Cheikh Anta Diop xam naa sant wi rek moom moo xaw a sant Diop ànd ak ay bokkam mm, ñëw fi muy góor ñi ak jigéen ñi ñu ànd ñëw fii ci barab bi fekk nu fi muy barab boo xam ne euh, béyti lañ koy wax béyti nag am néeg la boo xam ne nii mu ngi ci biir Daaru Xuddoos euh, quartier bi mooy Daaru Xuddoos kër gi ci bopp mooy Daaru Xuddoos ba yóbbaale kartur quartier bi yëpp kër néeg bi nag moom moom la ñuy tuddee béyti béyti sëñ bi moo fi nekkoon ci jamono yi mu ko sañcee euh, bi mu ñëwee ci dëkk bi wax nañ ne feefa jumaa ja foofu la jëkk a gisee ak Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te loolu maa ngi ko nangoo ci benn bànd boo xam ne sëñ jatara moo ko ci wax mu wax ne sëñ bi bi mu jógee Darou Salaam ñëw foofu ci foofu ci bib gi ak bib bi fi nekkoon ndax bib boogu moom sama baay bu ñuy wax Alaaji Maram Njaay dëkk Njara Wàq sa wax na mu ne wata ba ko maam Serap Fall yorloo woon keroog bi ñu fi ba sëñ bi ñëwee. ba ñu bëggee daggee béb gi moo ko lonk ci otoom loolu moom maga a mag wax waaw te ñu lonk ko ba ñu mu daanu ci barab bi ñu xëcc ko moo ak béb la moo tax moo leen béb la woon béb googu nag fa la taxawoon maanaam booba fii yëpp àll la fa la ko yont bi jëkk fekk fekk boobu mi ngi doon wàccaay bëggoon a dem Madinatu Munawara bu siyaare ji sangam bu sedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw yàlla def na bi mu taxee foofu nag fi la ko yont bi fekk foofu la ko jëkk fekk mu daal di gis benn rëbb nag ci gàttal rëbb bu ndax Boubacar Diop Boubacar Dia mu nuyu ko mu nuyu ñu nuyoo mu wax ko foo bàyyi ko mu ne Darou Salaam fekk boobu mi ngi doon wut lu yóbbal doon ko wutloo ma sàmba Diop Sàmm ba mu ko yebalee nag da ko demal wool ma ko ba mu dikkee mu wax sëñ Massamba Diop Sàmm laa la toppatoo mu ne ko mu nga Darou Salaam mu ne ko yontu sala salam daan bëgg siyaar ji waaye fekk na ma fii ma toog fii ma taxaw fekk na ma fi foofu nag la tàmbalal dégg bokk yi yëg ne mi ngi mi ngi ci àll bi am nag bëggam nag ca la joxe nag daal di yëg ko mu daal di joxe nag ndigal ñu nañ ko goral waaw mu daal di koy jot suñu borom ci digalu yonent bi sallallahu alayhi ba mu ko gorloo nag fooy fi jumaa ji nekk jàpp ko Sëñ Saaliwu foofu la tudde woon Tuubaa bi mu jox ba si nag daal di koy gorloo ba mu seet wecc daal di woo sunu sang bu baax bu jox sëñ Darou Sën Ndiaye euh, takkaloo ko néeg bi mu daal ko takkal ko néegu ñax néegu ca jamono yooya mu ne ko it kër gi niñ ko làkk làkkum ngeer ñu at koy làkk làkkum ngeer làkk ba it góor gi ko sëñ ba ko doon làkk kañ ko doon làkkaloo ci jamono yooyu muy bàyyi Mor Sall Ngana moom wax ne ma sëñ Darou ko woo ba mu dikk mu ne ko ku baax ki nee na ñu làkk ko kër gi làkkum ngeer bu gudd boo xam ne ku waru gëlëm bu mu xam du ni ci biir bu ñaar fukki nit ak ñett ak moom mu ñàkk barab bi da barab boo xam ne nag dégg naa sëñ mburu mu saa daal wax ne kenn du fi dugal ak bakkaar saa yoo jógee fa nga jógee ne maa ngi dem bayti di nanga rafet njort ci ne rek ba ngi daata dugg bayti jéggal nañ say bakkaar waaw barab la boo xam nii euh, gaal yi jeexiti sëñ bi yëpp mi ngi ci biir tukki ñooñee sëñ bi euh, jinne yi jéebuloon ci sëñ bi ca maayam bayit <coughs> wax nañu bi sëñ bi ñibbisee ñoo am ñoo moom ànd ba gànnaar ak jolof ak fu ñu fi dem yëpp ba bi mu ñoo ko fa bokk nekk ba ñu ñibbisee tubaa ñu wax ne daqaar gi euh, foofu moo din di seen dalukaay te loolu lay firnde ji mooy sëñ Mbàkke Madina bi mu fi nekkee moom di dafa leen daan rootal ndox waaw ndax ke ma ko wax Moustapha Samb la tudd doomi Baye Moussa Baye Ousmane Samb moo ma ko wax moo toog fii wax ma ko ne ma ñoom bokkoon na ña ko daan ñu daan root root ñetti band yooyee te njëriñ mit dañ ko daan rootal ñetti band yoo xam nii yooyu jamono sama sëñ bi muy sëñ Ousmane Ndiaye mii booba booba boobu ma nga fa moom moom boobu fa moom daa nga ci root moom sëñ Ousmane mii ñoom dafa nekkoon ak sëñ Daaru moom mooy jarbaatu maam Serap Fall waaw moom sëñ Ousmane Ndiaye mii moom mooy doomi sëñ Ousmane sëñ Daaru Sall Ndiaye moom moo toppoon sëñ Mbaye Falloo man moom laa tarbiya waaw moom laa tarbiya moom moom moom mu sëñ Ousmane Ndiaye mii ga mbànn yooyu nag bi ñu ko aju indee fii bi bi suñ mbàkki Madina bi ñëwee fii suñ mbàkki daan ko rootoon waaye bi mu demee nag rootootuñ ko nag waaye téewul nag ba tey ba tey barab bi moom ñu ngi koy orma ñu ngi ko jox orma waaw ba ci sëñ bi fi nekk tey ban euh, bi ma ñëwee fekk naa bunt bi mu sakk ko bunt bi ci jëm mbooloo la ci daan mbooloo dikkee nii rek àndandoo dem fa coow li ak yëngutu yi maanaam te barab bi yelluwul la mu sakk bunt bi waaw waaye barab la boo xam ni euh, ñu sant yàlla bu baax euh, xam ne fii ku fi teg sa tànk ku ne am nga taw tawféex am nga taw tawféex ndax barab la boo nii li fi nekk dañ ne ku jógee ku ñëw Touba te egsi wu fi nga mel ni ku ñu wëraloog tool nga yem ci buntu tool ba waaw ndax fii boo fi dikkee da nga fi gis loo xam ne nii jeexit sëñ Touba yoo xam ne nii fii rek la nekk jumaa ji boo fa nee dañuy wax sëñ bi fii fii la fii lañ ko mujjee gisee rek loolu la wax mu loxo waaye xam a nga sax ndax sëñ bi loolu yi suñu borom may yoon salam may na ko ko may na ko ko xam ne nii dafay nekk nekk fii di liggéey ba ba ba soob ko soob suñu borom mu nekk feneen di fa liggéey di fa liggéey waaw mu dee day jàllantu ni yoon su bi jàllantoo rek noonu la ko loolu yàlla may na ko ko ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day tëdd ba guddi mu gis ko wala nga gis ci cooli dër yi nga dañ koy gis waaye moom day day day dox ci pays yàlla yi waaw waaye tu doonul koo xam ni euh, ba mu làqoo la dafa tëdd rek fi benn bërëb waaw waaw ndax moom moo daan digg naa daan wax ne ku dem poroxaan soo fa ne ñun ma fekk la wala nga fekk ma fa kooku nag ku toog doo ko wax waaw kon nag ñoo ngi leen di ziare ñaan suñu borom defal leen tawféex te defal nu ko waaw lii ngeen di jàng eh, yàlla suñu borom def ci barke ndax sëñ Touba daa wax daan wax ne Touba bi dama jiitu ci ci ci ci ci ci dama jiitu ci jëmm yi ma jiitu ko ci xol yi waaw loolu moo tax eh, ku jàng français da boo gisee yaa ngi ci xasaay ndax xasaay lii ñu jàng boo ko dee jàng moom daanaka. Euh, tubaab bi moom ak loo ko jàng-jàngit du am jeexital ci yow kon nag loolu yàlla yàlla defal leen tawféex te defal nu ko barkeel liggéey barkeel njàng mi ba li ngeen ci yéene euh, li ngeen ci yéene yàlla defal def ko ci muy addiya ak euh, lu ngeen defar ko sa ay ak baatin yoo xam ne nii lépp ndax mu ngi mel ne ab ab bindukaay rek nga war a bind bind rek boo bind boo noppee teg bindukaay ba wala nga yor bopp bay boo noppee fab gopp teg ko rek noonu moom moom métier xam-xam noonu la mel si si Cheikh Mbacké Gaïndé ma daan wax ne xam-xam xaw ma bokku ca waaw te la taxoon mu def ko moom booba mag ñi sax jaaxal na leen waaye euh, day mujj day dema dem ba yéen ñi xam ne ñun ñii taalibe yi euh, day mujj ñoo yor Touba Ndakaar ñoo yor ñooy yor Sénégal waaw bu ko defee nag euh, diine rek moo fi dox ak lu baax waaw kon nag ñu di sant bu baax ñaan suñu borom Euh, sàmm góor ñi sàmm jigéen ñi euh, ñi ci toll ci samp kër yëpp suñu borom dafa leen ba ñu amee xam-xam ba am këyit yi am fu ñu liggéey am lu ñu liggéeyee am am samp kër nag ba am njaboot yu barkeel yoo xam ne yàlla teg leen ci yoon wii ngeen jaar waaw ci xam-xam bi ak yar bi ak teggin yi ndax sëñ Tuuba sëñ bay Jaxate ma nga naan teggin lay may gudd fan ak way ak jàmm ku doy moo lay may jur nee teggin a gën yaay te moo gën it bàyyi moo gën bari yi jàpp ko yow yor moo mat a tàqool mu ëpp tàggool day notta koy mool te du coow bi yar loolu mooy teggin teggin nag mooy ay ta mooy ak mooy ak taalu bi waaw kon nag yàlla nañu ko defal sant sant gërëm rek def nañ ko ñaan su borom defal nu tawfiix euh, jéggal suñu bàkkaar yëpp te def nu nuy nu tàmbali sëñ bi yem ci sëñ bi ndax sëñ Tuubaa euh, am na bay di ma ci wax maanaam ku sopp Seex Bàmba euh, ci baax ngay faatu sooy faat da tabbi aljannaatu te baaxu sëñ Tuubaa mëni su ko wax ci aw lami géej la nañ soo bu tey jax ndax bàyyi laat mii daa ma sa wax ne euh, njébal yi bari lool mu ne ma daal njébal yi bari nañ lool waaye li ma ba nga xamal sëñ tubaa sëñ tubaa géej la géej nag bala nga ci dugg da nga nekk ba nekk ndox yor melaw ndox na baraanu tàbbi ci géej ba mu ci tàbbi nekkul ndox bu géej jëm da ko fay bàyyi mu bëgg na ku ci dugg nga dugg ko jom Pastef ak ngor nee na ku ko defee ni mu ko waxee day sa dina yëwén sa àllaxira àllaxira dina yëwén te neen loolu mu defu ko lu ko leer la ne sëñ Tuubaa géej la géej nag ba nga ci dugg nag néeg ba nekk ndox te loolu moom wax di yàlla ñun am nañ ci cant bu baax sant leen ci bu baax ndax xam nañ ne yéen a ko ci loola waaw ndax jàng tubaab yi ngeen di jàng moom nekkul ci seen jëmm waaw xol bi nekku ci waaw jumtukaay la rek boo xam ne li nga ko liggéeyee kon yàlla yàlla def defal ñu ci barke waaw ci barke sëñ Tuubaa euh, barke maam Seera baa di muridiina kii maam Serap Fall mooy nijaayam lenqe man mii Serap Fall sama maam la waaw a maam la ndax njara ma dëkk maam Seyna bu Njaay ak maam Njaay Fatma sama maam ak baay waaw nag laa tërbiya maam la ci man sëriñ la ci man lépp kon nag ñoo ngi ñaan suñu borom faj suñ aaju yëpp waaw dafa nu tawféex ak ndimbal waaw ci barke Sëñ Tuubaa waaw Baay Daam Njaay bëgg Bamba mooy sama tur ñuy nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp di santaat bu baax a baax sëriñ bi ci kàttanal gi ñuy kàttanal saa rek ñuy xencu eh, lenn ci baaxam ay xar baaxam ndax sëñ bi moom niñ koy waxee rek du ñuy xam waaye eh, ni sëñ Muntaxa di wax naan loo ko gën a xencu rek gën koo xam waaye kon ndokk ba ñu sëriñ bi dimbalee saa rek ñuy xencu ay xar baaxam ñu ne sant bu baax suñ Baye Dame njaay wax dëgg eh, ci ci ci ci ci leeral yi leer na leer na nañ te it mën naa ne xamal nga ñu loo xamante ni xamuñu koon te it xañ na buñ fi ñëwutoon it duñ ko mas a xam suñu àdduna kon ñu la ciy sant bu baax di la jaajëfal di ñaan sëriñ bi eh, gën laa kàtt na lu baax gën laa dimbali yokk fan wi eh, te wéral ci yi itam nga yàgg fi lool lool lool. Eh, comme ni nga ko waxee rek liggéey nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal Seexul Xadim di ko liggéey sa maam Cheikh Rafa itam nga amee ci lu koy sa njort ñu ngi la koy ñaanal bu baax di sant bu baax nag ci yëg gi ndax eh, lii moom ak yëg mënu ko weesu nga ne xañ na ñu jóge sa walan rek eh, mën naa ne yëgluwuñ sa ba ñuy ñëw jékki ñëw rek kon boo ñu teeroon ni leeral la ñun lii barab bi kon loolu la ci cant bu baax a baax di la jaajëfal ñaan sëriñ bi gën laa yokk bu baax a baax Euh, kon xam naa barab yi ginnaaw dañ koo tëj ci biir mën nañuy taxaw ci fenêtre yi rek waaw daal di daal di kii ziar romb jàll waaw waaw. yoo xam ne nii lépp ay téere rek ci nekk téere alxuraan ak téere euh, yonent bi waaw ak lenn ci mbindi sëriñ bi waaw ndax bagage yi euh, ay daa mi ngi fi këll bi it mi ngi fi ab këll ngi fi ñaari këll ngi fi ba këll yi sax dañ koy laaj mu bari ci nit ñi daanaka fukki nit di fi dikk juróom-ñeent dañ may laaj ke dañu defee ne këll bi maam seex ko moom dama ko laaj ne ma këll bi ko mooman këll bi ma ne laa këll bi de moom ki mën moon nii bi moomam këll bi ndax la eh, ndax nun fi leen ko fekk ndax man bi ma fi ñëw dëkk bi fii Touba 1964 laa jóge Njarawaaxe ñëw fi waaye bi ma dikkee eh, fi laa fekk këll bi waaw waaye men mag moom ke mag moom wax ni ma këlli bi Cheikh Rafaal ko moon walla kii moom wax dàgg mosuma ko teewlu wala ma gis ko nit ñi ci nit ñi nag ñooy wax naan këlli bi këlli bi Cheikh Rafaal daana ci yelwaan daana ci root te te defu te du dara lu ju defe naag yaakaar naag dégg naa rek man leen loolu man ak sa loolu sañu ma ko man sañu maa wax dégg naa sañu ma wax euh, euh, yaakaar naa waaw ndax Seera Fall moom dëgg la moom moom euh, ba lu bokk ci moom sax man yor naa ko ci sama kër muy ak gaal goo xam ne sama maam la ko joxoon mu garawoon ko ci njëriñam jox ko ko waaye këll bi moom euh, bu ñuy li coow li bari bari ak euh, li ñu ko wax wax du tax ma ma man ànd ca ne moo moom du ma ca ñàkk ànd ne moomut waaw am xamu ci daal lu may bagage sëñ Tuubaa de sëñ ki fi ki fi ne sëñ Ahmadou Mokhtar it la ma wax ba dikkee nee na ma bul ko kenn ndax barab la boo xam nii ñi ki jëkkoon ni nekk nañ ko daan ubbi nit ñi di fi dugg ak génn ba bagage yu bari dañ ko jël waaw ba moo waxee loolu ma ne ko waaw tout tànk yi ci kër gi nag mu ne ma ku fi dikk ku mën di way juróom bul ko ubbi waaw daal noonu ndigal loolu mu ma jox loolu la ma daal na ma ku fi dikk na xam ne euh, yëri sëñ Tuubaa moo fi nekk bagage sëñ Tuubaa moo fi nekk loolu nag ma mënu ma caa teg dara mënu ci caa dindi dara kon nag ñoo ngi siyaare bu baax a baax dañu xam ne taaw xool gi rek nii euh, doy na lépp taaw xool gi rek waaw ndax mu leeral yow lii sëñ Tuubaa moo ko moomoon am na gaal yu ne fee ca penku sax mu ne ca laal loxo nii yaari gaal nga fa yoo xam ko bàyyi noonu ngir koo xam ne yóotu sa loxo ban caa jot mu leer na yow laal nga loxo loxo nii sëñ Tuubaa moo ko moomoon mel na mbubb mi nga sol nii rek ku ko laal mel na laal na la waaw loolu noonu loolu demee waaye fii moom taxaw gi la doy na sëkk waaw taxaw gi la sëkk ndax tànk sëñ bi boo jógee fii ba ca buntu kër ga foo fi jaar rek jóg nga ca tànkam ca tànkam ku ko jógee ku ne rek defaru nga ndax jullikaay sax dañu wax ne fu mu def jullikaay benn benn ñaari rakk képp ku ko xamoon def ko jaarukaay kuñ fa denc sax yaa ngi dekk si tubaa waaw waaw xuma laa foo xam ne dafa def juróom at te ba fi jóge it dafa woo sëñ Mbàkke Buso ba fas wi taxaw fas wi taxawee mu mu woo sëñ Mbàkke Buso ba mu ñëw Mbàkke Buso ba mu ko mu ne ko ñëwal ma jottali la kàddu yu gàtt nga jottali ko frais yi dëkk sama dëkk bii na nga leen xamal ne sama dëkk bii di Touba day juróom-ñaari at rek la ma yàlla may ma dëkk ko fi juróom-ñaari at yooyu nag yaar rek laa fi nekke woon nangu leen ko wax ku fi bëgg dëkk na nga leen ko wax ni leen yaar yi ma fi nekke woon day képp ku fi nekke dana am tey ak ëllëg waaye képp ku ko kooj nekke fi neneen day ëllëg si biir lu mu gisul la ko naqari loolaa ko ko teg daani yaar yéen mooy bëgg yàlla ak yontu bi rek kon nag loolee ak fu mu mën a taalib bi mën a nekk ndax sëñ Abdou Lahad daana wax ne taalib bi fu mu nekk nekk fa benn taalib bi ak mu nekk fa junni yoon junni taalib bi nee loolu la war a yemale waaw foo nekk daal nanga nanga na nga na nga xam ne yow ab taalibe nga way ca la nga nekk rek bëgg lu baax bañ lu bon rek waaw loolu sëñ Tuubaa même foo mën a nekk rek ba ka dikkoon suñu bilaa ne ko waxal sàndarma yi ñu yem ci seenu dikk sëñ dikk mu ne ko garab yi bi lañu wax ne mooy seenu dikk suñu bilaa ne ko loolu ku la ko wax mun a mën nee ñu ma yaa ko wax suñu bilaa man xamal ko ne ko man waxuma ko waaye nag kaaraageel borom Tuubaa dem na ba fa ab murid nekk ab bi fu mu nekk te dëggal nee na kaaraange Sëñ Tuubaa fekk na ko fa mu nekk ëmb ko nii waaw foofu waay nekk rek ñu nekk Amérique ak France ak Afrique Sud ak euh, Espagne foofu waay nekk te taalibe te wii ci ndigal na la leer na yaa ngi ci biir kaaraange Sëñ Tuubaa ndax ba muy ba muy sañ ci dëkk bii téere ba mu bindoon muy Matlabul Fawzayni ma ngi ko bindee ko sëñ ko sëñ Saaliwu foofu la ko bindee foofu la sëñ Saaliwu doon wax ne ba muy bind Matlabul nii gaynde ga doon dàq ngara ga ngara ga ngara da wut si Sëñ ba mu dikkee fekk sëñ Tuubaa di julli di di bind mu fa benn tànk bi gàcc ko fii benn bi mu gàcc ko fii gaynde gaynde Jóob taxaw na le di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool ba yàgg gaynde gën teggi daal di wëlbit daal di noonu noonu soow euh, ngara ngara moom xool ba yàgg di wiir wiiri ba yàgg moom mu wàcc tànkam teg ni daal di noonu la penku foofee la woon téere ba mu ko bindee it ba mu ne nëf fii bakkanam la wax wa diini diineem suma ahli sama ñoñ taalibe yi daal sama noonu wala nëbs yi wa diis ma ahli wal walad su ma ahli wal wal mu muy njabootam wal walad ak i doomam wa maska di dëkkuwaayam làkk ñeen la suñu borom wa diyatun ab dénkaane la jëkk dénkaane teg ci diineem teg ci taalibe yi teg ci doom yi ak sët yi doog teg dëkk bi waaw loolu la foofu daan daan dénk yàlla moo tax ba ba mu jógee fii dem yont bi dafa ne ko aara lañ la dëkk bi aw dëkk bi aw du ay du la fekk kon na ngay dem mbàkki bari fa lañ la mën a fekk jàpp la waaye fii yaa ngi dëkk bi du ñu mën a fekk du ñu mën a jàpp loolu moral ba mu waree rek mu daal fi jóge sawal sul xiiti sul ti mu aram nekk ko mbàkke baar yi ba dugg yor safar wa rek bu jàpp fukki fan yaa juróom-ñett pour dem ci tubaab bi waaw tubaab bi jàpp 1895 la mu dëppal euh, bisub gaaw la booba jeewal yi jeewal la tubaab bi di ajjuma jeewal la fekk tubaab yi ñu bëgg bu gaaw bee borom daan leen toog leen fi ba gaaw suba ci gaaw bi ci tusbaar bu leen fekkul ngeen fekk foofu mu nekk waaw loolu moo waral euh, mu jam booba la dem ci tukki ba waaw yàlla dafa dimbali ko nag ba mu dem ak jàmm ñëw jàmm ba euh, la mu bëggoon am am ko amal nu ko kon nag war na nañoo sant yàlla xam ne nu làq nañu loo xam ne duutu jeex lu bon sori nañu kon nañ def ñaan auzu billaahi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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أنس برب الفلق من سر ما خلق ومن سر خاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا أسد بسم الله قل أنس برب الناس ملك الناس إله الناس من سر وسواس الناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو القيوم لا تأخذ ما بين أيدي ما خلف ولا تؤمن بسم علمه إلا ما صاب وسيكسر السماوات ولا يهوده إفسهما وهو العلي الأسيم يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جمع يضرنا بسم الله جل ملكم سالكين ملك كين لإلا في بل خريس النار إلا في ولف رلات سيري ستاي لوبي في تباب فليبولو تكلور رب جولا آسا سوسي بيت بامبرا لسي ملونك أتامم خاصم كمين جوين من جاغو وآمن أم موسى من خوفهم كلهم كبج كب doomu aadama jaay yëpp يب yëpp lu ñu mus seenu ay bisam laay mucc rahmaani te réew mi xéewal nanu fekk lu baax wuteelu bonta sax ji nanu mucc waaw kon ñoo ngi dellu di ziarat mbokki taalibe bi yëpp ku gis ci barab bi ñu taxaw rek xam ni ñoo ngi ci barab bu sell bu tedd bu màgg comme ni ko bàyyi daam njaay mii doon leerle léegi rek bokk ci waa kër Sëriñ Daaru Assane Ndiaye leeral ñu baax taarixu yoon bi ci barab bi leeral ñu ci lu bëre bëre mu doon barab boo xam ni barab boo xam ni mburit bu ne war na fexe ba di fi dikk di barkeelu ci li ñu tuddee ay yére ci suñu mag bi mu mel ni comme ni ko leerle rek wax nañu fanweeri gaal mu ngi ci barab bi ñu nekk nii ak ay bagages yoo xam ne bagage ku tedd ki la te suñ bi daa wax ni képp koo xam ni teral na lu bokk ci man tedd ba faw képp koo xam ni teddali na lu bokk ci man tedd ba faw ba noppi it gis nañ fu bëre muy leeral ni ci xiste yi xam ne suñu laaj mbàkk mi ngi koy nettal nga xam ne kenn ci mag ñi rek sëriñ bi jëkk jox yàbbitu gura di xamal ni kat yàbbitu gura boobu kat moo gëm ci moom lu lool kon suñu saybata bu ñu nekkee fii ci barab bi ginnaaw ba ñu jaaree xam ni kat eh, mbir yi fi nek doon ay mbiru borom tuba mu wër la li ñu tek suñu bët sëriñ bi moko ko moomoon ñu lay laaj yow nga xam da nga bok ci jëri ñi nga xam ni ñoo eh, yor liggéey bi diko doxal doxal ñu yëg-yëg nga amaat bi nga tàbbee ci barab bi ba suñu borom dafa la tawfiix nga tek sa bët bagage yi nga xam ni sëriñ bi mag bi moko ko moon ana ban yëg-yëg nga amaat ci ci ci ci ci gis nga xam ni gis nga koy bagage sëriñ bi mag bi السلام عليكم ورحمة الله وإني أهيت بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من شر الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون يوم سانت سرين مام شيخ سار بو باخ باخ با دانكا لي تي مونا نوخ واخ نكو واي نك البتو تاع لي موي سي ديك جي باك manam lor rek warna tax kon tàbbi gi war te itam mu dolelat mu dolelat mu dolelat wax ñu itam ni eh, barab bi kep ko xamni ni nga fi mel ni sa yeksi Touba nungu nan ko ndax kep ko xamni ni nga fi da nga mel ku yeksi tol te yeksi wo kon lolu muy ak bu baax baax rek kon dal jeexental gi mu def ci ñun dal moy gëna bëgg sëriñ bi gëna gëna gën xel sëriñ bi te it gën a xel liggéey bi rek jërëjëf Cheikh nañu baax ci rafet na lool.